salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar mbokk yi ak digital store coono wàcc na leen jaarle jeex na digital store indi tina gamme smartphone ak tablette android yu bees tax dëgër këcc day téléphone yoo xamante ni entreprise bii di Crosscall daf leen defar ba noppi garanti leen juróomi at ak batterie yu dëgër yu nangoo yàgg lool te wér jënd leen gaaw seen gamme téléphone M5 wala X5 wala T5 wala s juróomi at lañ leen garantie looloo ngi doog am nag ci téléphone mobile entreprise bii di Crosscall ñu ràññeeku ci liggéeyum télécom moo def li ni mel gaamu téléphone yi M5 X5 t ak S4 di ay téléphone yu bees ndox du leen yàq choc du leen yàq dara du leen yàq mën ngeen a dem ak moom fu leen neex moo xam bureau la wala géej wala sax ngay sàmmi wala ngay dem tool wala ngay sport wala ngay liggéey ci chantier dara du leen yàq. daw leen gaaw ci sunu boutique showroom bi nekk ci avenue Bourguiba wala ngeen woote ci numéro bi vingt 33 825 73 00 wala Soumbédioune sur la corniche ci numéro bi 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien. kon Mbàkke loolu lañ ne woon moom la ñuy tàmbalee waaye sunu xol fees rek ba xamatuñu sax lañuy ñuy tàmbalee kon ginnaaw bu ñu la nuyoo noonu ngi nuyu sa bokki bopp yu tedd yi nga xam ne ñooy njabootu Serigne Touba di suñuy sang euh, di ko teg nag ci loxol Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne moo yor sa kàddu euh, di nuyu mbooleem kilifa yoon wi muy njabootu seexi sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom di ci teg bokki jullit yi di ci teg bokki taalibe yi ñoo ngi beral ab nuyoo waa Touba ak mbooleem ñi nga xam ne dikk nañu fi wala ñu yéene woon ñëw moo xam xarit la dëkkandoo la bokk la wëllëre wala am di jàmm Mbàkke ginnaaw bi ñu dégloo fàttali yu am njëriñ yi nga xam ne ndawi daara isbu tarxi yi def nañ ko léegi jukkee ko ci waxtaan wi nga defoon ci tabaski gi mooy atum ren junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent di bisub alxemes ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin 2023 mu jëm ci soññee ci taxawaay ak worma ji war ci Touba ci képp ku fi dëkk ak képp ku yàlla dimbali mu jëm si fi rawatina nag ndaw ñi soññe bu rëy bu bari njëriñ lool mët sëkk yóbbal ci kenn ku ne ngir mu fabuwaat gën a wan ginnaaw àdduna fas yéene gën a dëëral sunu jéego ci fonk diine fonk sunu taalibe sax ci ak njub fonk ndigal sóobu te xam ne loolu rekk ci bi lañ mën a sàkkoo ngërëmal sëñ Tuubaa soñño yi nag mosoo denc di ko def ñoo ngi fàttaliku bis boo xam boroxaan la woon 1980 boobu léegi mën ak juróom muy benn yëg-yëg boo xamante ne danga ñu cee baaxe woon loo xam ne suñ ko xoolee rek nga am biñ ko xoolee dafa mel ni lépp day tënkuwaat ci adabul mardi yi nga xam ne mooy dimbali taalibe bëgg soobu am ngërëmal sëñ Tuubaa wa kullu man xadama nii aw zaara fa najjihi wax fiir aw zaara wa kullu man ahabbanii aw maala ilayya farzuquhu hudan aw maala wa kullu man chatamanii aw laama fa hablahu tawbata wa stislaama fa kullu man asaa zannahu biya fal yaqallib qalbahu yaa rabbiya wal takfini aza jamii alamin wal takfihim an wal takfihim azaya yaa rabbi amin Mbàkke ñemewuñoo firi béyti sëriñ Touba rawatina ci sa kanam waaye nag ñu teewloo ñu dégloo waaw ñemewu ñoo firi béyti rawatina ci sa kanam waaye nag keroog dañ ñoo baaxee tënkal ñu ko ngir mu doon yóbbal ci nun fi nga tàmbalee mooy njëriñal liggéeyal Serigne Touba yaay muy loo xam ne moo ñuy may ak mucc moo ñuy may ak njëggal tey dañu ko may ëllëg li nga ci teg mooy cofeel gi nu am ci Serigne Touba li mu ñuy jëriñ wan ginnaaw àdduna buur itam jëm ci Serigne Touba wan ginnaaw àdduna buur fa bu buur jëm ci sëñ Tuubaa loolu moo nuy wommatal yoonu njub moo nuy wërsëgal itam nga dellusi si ah, wan ñu doxin woo xam ne mooy doxinu taalibe bañ a gestu bañ a fayantoo ak tooñ suñu bopp ngir jëmmi yàlla te dëgg ci noonu te tëje ko nag sàkku ndimbalal sunu borom ci mucc ci loru mbindéef yi te fexe bañ lor kenn lii nag mbàkke ñun dañoo seetlu ne réew moo xamante ne wala xeet woo xamante ne yóbbaloo nga ko def ko sa ndono di ci tegtaloo yar ci sa njaboot yar ci say ndaw keneen ku yow dina la ñee fii ci àdduna dina la ñee ci àllaaxira bisub tey bii nag mbàkke amuñu lenn lu ko gën a rëy ci noonu amuñu lu ko gën a féete kaw ci noonu ndax këru xasida gii nu la fas yéene jébbal tey caabi ji dafa bokk ci pàggu téefu Serigne yi nga xam ne yow la sunu borom defal tawféex nga jëmmal ko ci kaw suuf liggéeyal ko Serigne Touba kon sa liggéeyu bopp la umpale wuñ ne yaa ko liggéey itam waaye da ñu cee sagal yéene nu ko gunge ñu ceeg say ñaan. fu ñu fi mës a toll loolu leer nañu xam nañu ko looloo wét looloo war a itam mësuñu ci am gàllankoor ba ñu tàmbalee liggéey bi keroog ba ngay joxe ndigal li woo sa jàmbaar ji du suñ jëwriñ ja sañ aatu yàlla na yàlla suñu borom dolli ci moom njëggal euh, di ko dollee teral te janatul si keroog ba nga ko woowee jox ko ndigal li bis boobee ba bisub tey liggéey bi mësta dogantal te lépp lu ñuy wut la ca gën lañuy yootu te fu mu mën a nekk ci àdduna dañ ciy def yitte dogu ci waaye Sëriñ Tuubaa da ciy def ak jàppandal diir bi mu def itam muy ñetti at yu tegal tuuti avril 2020 ba août 2023 dara waralu ko ludul fu ñu mës a toll dañuy seet li gën ak fu mu mën a nekk ci àdduna ñu jàpp ne moo yàlla ci këru xasida yi bu ñu ko mënoon def wurus wala ñu mën koo def jamaa dinañ ko ko def ba noppi xeeb ko ndax sëñ Tuubaa kenn mënut jot àqam euh, li ci tege mooy Mbàkke këru xaside yi dafa nekk ci biir mu jàmmaaw bi muy këru euh, euh, université bi ñu koy université muy euh, mu jàmmaawu Cheikh Amadou Khadim waaye architecte yi ak bureau de contrôle bi ñoom mën nañoo seere lii ma wax ne mosuñoo maslaa ci sàmmonteeg lan mooy norme qualité yi gën a xereñ ci wàllu liggéey ngir liggéey bi mel na mu war a mel waaye ñoom itam mbàkkee ñoo ngi leen di seereel cant goo xam ne amul fu mu yem ndax suñu ànd suñu diggante ak ñoom rafetoon na lool diirub li ñu fi nekk ak ñoom ci liggéey bi euh, bàyyiwuñ ñoo kenn mboole ñoom seen mboole seen ñu fi nekk ci université bi di fi liggéey suñu diggante ak ñoom rafet na lool bu ñu ko tàmbalee sëñ Amadou Bada wi mii lañuy wax sëñ maam Thierno mii moom sëñ Moussa Bachir sëñ Abdoulahat Ka ñoo nekkandoo fii di liggéey waaye rafetoo lool ci wàllu liggéey lu ñu am itam ci jumtuwaay jàpp nañ ne bu ñu ko soxla woon sax ñu jox ñu ko sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Abdul Hakim waa Touba ca kanam sëñ sëñ sëñ sëñ Habibu waa Talixatul Muridiya muy chef d'entreprise yi nga xam ne dañoo nekk ci yoonu murid waa ahlu soida ak soxna Sooda Xuma daayira commerçant yi waa naatal Touba ci njiital sëñ Moustapha moom sëñ Abdul Xaadir moom itam diggante bi ñu paree liggéey bi ba toll ci war a indi garab yi sonn na ci coono boo xam ne war nañ la koo seereel Mbàkke moom sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadre ñoo ngi koy sant di ko gërëm ak ñeneen ñoo xam ne mënuñu koo lim liggéey bi rek li ci mët a jàpp mooy Hizbut Tarqiyyah rek liggéeyu ko ñoo taalibe ñëpp ko bokk li waral may leeral loolu mooy dëgg la Tarqiyyah amul sañ-sañ ci doxinam di laaj lu jëm ci dajale ñàqu murit yi loolu xalaatuñu ko biir Hizbut Tarqiyyah lu ñuy woote di ko laaj du ñu génn biir Hizbut Tarqiyyah ndax loolu baat ci borom la sax loolu sëriñ bee ko sañ wala ku mu ko def loo bu ñu ko defloo woon ñu def ko waaye ñun sañu ñoo laaj lu weesu Hizbut Tarqiyyah waaye nag murit yi ñoo doon jógal seen bopp di nu fekk si fii li nu am di ñu ko jox ngir ñu ànd ko def ko ci liggéey bi loolu nag moo tax liggéey bi bu bisub tey boo ko nattee àgg na ci ñetti milliards yoo xam ne dem na ci mbakki nag bala ñoo daaneel suñu kàddu faw dinañ la kañ faw dinañ la sant faw dinañ la ndokkeel te bëgg nañ ko bokk ak bokki taalibe yépp bëgg nañ ñu xam ne weesu nañ ci yow rafet njot dañoo am yaqin ci ne xasida yi sëñ Tuubaa yi ñoo lay sant ñoo lay aar ñoo lay garanti ñoo lay wéttali te mboolem futuhaat yi mës a am ci lislaam muy ay ndam yu jullit ñu amoon di nga am ndam yu ko raw insha allah ndax xasida yi sëñ Tuubaa yi mën nañ lu kenn mënut te ñoo ànd ak yow loolu sëñ Tuubaa moo la ko fàggul mbaa këru xasida yii ñu la fas yéene jébbal caabi ji dañ ciy jiital ak tuub ak toroxlu ak yëg ne liggéey bu tedd bii kenn yeyowu ko tawféex rek mooy tax nit mën see doon dara loolu waral euh, Hizbut Tarqiyyah xam nañ ne seenu cant ci yow lott nañ ci moo waral itam yéene ji ñu amoon ci tabax bi doon wurus walla jamaa te te yàlla suñu boroom dogal mënaguñu ko ñu ne nag kon caabi ji ñu lay jox da doon caabi joo xam ne dañ koy liggéeyee or te def ci ay perlu jamaa kon loolu lañ ko yàlla dimbali nañ ba loolu defee nañ ko noonu jubluwuñ ci nag lu dul muy pas-pas boo xam ne xëy na dinañ mës a àgg foo xam ne dañuy dañuy jël lépp waddaat ko ci or ak jamaa ba noppi te bu boobaa sax loolu du àqi Sëñ Tuubaa bu boobaa da koy def it boole ko toroxlu wala seen yootoona maa aataw wa quluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raaji'uun Sëñ Tuubaa kenn mënu koo defal dara kenn musta liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu toll ne li ko sëñ Tuubaa liggéeyal man danna annahu yakunu abada yurdi billazi ka xidmati bada nafaytu dannahu bi anni al xadim bi maa wan naa an misli kullu xadim li ci tam li ci topp itam Mbàkke muy ñu sàkku ci sa ndigal kuréelu xaside bi ñu jóg kañ borom barab bi bàkk ko dañoo tànnoon fukki bayit ak ñaar yoo xam ne xam nañ ne keneen ku dul Serigne Touba du ko wax ndax diggam ak boromam da koo làq keneen làqu ko ñu ñaan Serigne Ablaye Diop da ngeen di jóg taxaw lott nañ sax ci kañ ko waaye yëkkati leen ca kaw fukki bayit ak ñaar yi may wax sëñ Sidou Omar Mbacke tuddoon na ko léegi bi ci jëkk mooy lam yan hu ni makrun badal jazairi wa biya yaqdillaahu xaaja zaa'iri tursi anil adnaasi wal axyaari kaw nii xadiima sayyidil axyaari waajahani jamiilu bil bushaara fi xidmatil muxtaari zil bushaara darajati kaw nii abdallahi xadiima abdi min abdillahi ilaa tawaali fii yaquudu llaahu asraara laa ilaha illa llaahu haajat xasaayidi quluubal xamala lil arshi wal kursi bushraa lil kummala naabat kitaabati an ilqitaali wa zaxzaxat duri ilaa aqtaali yaquudu lii uluuma man taqaddamu wa man taaxaru wa taalul xidamu awrasani llaahu kitaaballaahi wa jumlatil kutubi bi hisbillaahi aqsamtu billaahi inni li nabi abadan xillun wa hibbun wa ma abaaw yabaaw nabiyuna al mustafa xayrul wara garadi fi kulli shay'in wa ma yabaaw abaaw na ilaya qaadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkin kon lii la bëggoon kuréel bi yëkkati ko ñu jublu ci sant rek lott nañ ci nag suñ ko defee ba noppi kàddu yi ñu mën koo tëje nag addi yi ji nga xam dañ ko baaxoo def boole kook ziar bisimilah. jëf Mbàkke kon loolu mooy cant gi rek li ci dolliku rek mooy addiye ñi nga xam ne dafa baaxoo ànd ak ziyaar ndax bis bi bisu ubbi këru xasida yi la waaye it isbu tarxee da ciy siyaare euh, dëgg la membre yi xam nañ ne kenn ku ci ne yaa ngi nekkoon ci wàccaayu bis bi ba taloo sax sa bopp waaye loolu du lay de bi ñu gisee sëriñ bi dimbali nañu gàttanduñu nañu ba li ñu la jébbaloon daaw bu defe naa ñeenti téeméer la woon daaw ñeenti téeméeri million yàlla dem dimbali nañu ba dool nañ ci weccit weccit doo kon moom la ñu la jox mooy ñeenti téeméeri million ñu tegal tuuti rek ñu xeeb ko lool nag ndax xam na kenn mënut a jot sax jërëjëf Mbacke Avec Digital Store, vous allez enfin réaliser vos rêves grâce à la toute nouvelle gamme de smartphones et téléphones Android dernier cri de l'entreprise Crosscall. Vous n'allez pas nous croire, c'est la première fois dans l'histoire de la téléphonie mobile qu'un constructeur de télécom mais sur le marché digital des appareils téléphoniques garantis cinq ans. C'est le M5, le X5, le T5 et le S4. Les produits Crosscall sont d'une solidité et d'une garantie que vous ne pouvez puisque prouvé aux normes militaires et doté d'une autonomie largement suffisante avec alarme en cas de danger. Les seuls appareils avec anti-choc. Ils sont étanches dans l'eau, du jamais vu. Les appareils Crosscall vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles, au bureau comme en dehors du bureau, pendant votre sport ou pendant les travaux champêtres, les chantiers ou en mer et partout. Contactez-nous au plus vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 ou à Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien salatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala mahin mal absa wa safar